الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yi ñu ngi dénk sunu bopp di leen dénk tënku ci ndigali borom bi azza wa jal di moytandikuloo sunu bopp di leen moytandikuloo bët ay teleem di jëmale sunu xutba tey ci benn tomb ca mooy risaala bi nga xam ne lépp lu borom bi tabaraka wa taala bind am na risaala bu tax mu bind ko am na lu tax mu bind ko nga xam ne lépp lu mu fi def lu dul li tax boromam tabaraka wa taala bind ko jàdd na aw yoon euh, garab yi ak gàncax gi ak jur gi yépp lu mu ci mën a doon am na lu tax suñu borom bind leen doomu aadama tamit am lu tax suñu borom bind ko doomu aadama li tax suñu borom bind ko mooy mu jaamu ko xam ko dëgg-dëggi xam jaamu ko dëgg-dëggi jaamu wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa li yaabuduun lu tax suñu boroom asamaan ak li ci kaw ak suuf ak li ci kaw benn xikma ak benn jubluwaay moo tax boroom bi bind ko asamaan ak li ci kaw ak suuf ak li ci suuf lépp li tax borom bi tabaaraka wa bind ko mooy ngir doomu aadama xam boroomam jaamu boroomam kon xam yàlla ak jaamu yàlla mooy jubluwaayu sunu borom tabaaraka wa ci doomu aadama ba tax mu bind asamaan ak suuf borom bi moo ne sunu maa bind asamaani juróom-ñaar ak suufi juróom-ñaar ngir ngeen xam ne man buur laa boo xamante ni bii tëliwuma dara ngir ngeen xam ne lu mu man di doon peeg naa ko ci xam kon ci doomu aadama la suñu boroom def sekkare boo xam ne tax na mu doon mindéef mi gën a tëdd ci mindéef yi bayayoo malaaka yi di sujootal ci moom ngir teral ko mooy wal gi suñu boroom def ci moom ak ruux moo tax bi borom bi tabaraka wa taala waxee malaaka yi ne damaa bëgg a def xalifa ci suuf ku ma wuutu ci kaw suuf malaaka yi jàppoon na ñoom ñoo gën a tedd ba xilaafa googu ñoo ko yeyoo ba di laaj borom bi tabaraka wa taala lu tax ngay tànn doomu aadama dañu fi bàyyi sunu borom xamal leen xam naa lu ngeen xamut mu daal mel na dafa daal di amal benn ab natt ab examen seen diggante malaaka yi ak doomu aadama examen boo xamante ne bii doomu aadama moo ko gañe ba tax mu yeyoo xilaafatullahi fi ardi ca mooy sunu borom dafa boole mbooleem li nga xamante ne bii mooy mbir yi ma bind mu laaj ko malaaka yi xamuñu sax tur yooyu bay xam nañu koy jëfandikoo ca sunu borom moom ca doomu aadama moom sunu borom xamal na ko loolu ginnaaw nag kon asamaan ak li ci kaw lépp suuf ak li ci ëmb lépp sunu boroom mi ngi ko bind ngir doomu aadama xam boroomam dëgg jaamu ko kon foofu lañuy ñuy xam xiima bi nga xamante ni bi doomu aadama am na ko xiima bi nga xam ne tax na boroomam tàggatal ko li ci asamaan ak lépp saxara lakum ma fi l ard jamia xiima bi tax moo tax sun xiima bi tax suñu boroom mbooleem luy ay xéewal mu sëmbatal ko ci kaw doomu aadama kon lépp lu sunu borom bind da ko tàggatal doomu aadama bindal ko jant bi mu di ko leeralal waxtu bëccëg bal man cee sàkk énergie boo xamante ni man ko mën na koo leeral euh, guddi bal li muy jëfandiku tamit ci lu ñuy lekk wala lu ñuy naan mën naa sàkk ci jant bi énergie boo xamante ni ci la koy togg wala ci la koy tàngal waaye tàggatal ko tamit biddéew yi ñu di ko gindi ñuy xam fu xibla féete di xam fu waxtu wi toll ak yeneen ak yeneen tàggatal ko dex yi ak géej yi mboolem luy xeeti ndawal ñu di ko fa jële waxtu wu nekk ca du jeex mukk muy yàpp wu bees taq wa tastaxrijuuna minhu laxman tariya waaye tàggatal ko suuf tamit lépp fu ko soob jëfandikoo xeeti mbay yi waaye xeeti yi ñuy génnee ci suuf ci ay xeeti doj ci ay xeeti fer ci xeeti petrol ci xeeti gaz yoo xamante ni bi doomu aadama dana dund ci kaw suuf ba jóge fii te ko jeexal tàggatal ko ngelaw yi tàggatal ko géej yi doomu aadama la yàlla tàggatal jaww ji muy dox mën a dox ci kaw suuf mën a naaw ci jaww ji di dox ci ndox mi ca benn bu nekk suñu borom wutal na bu mu war mbokk yooyu yëpp borom bi tabaraka wa tàggatal doomu aadama ana doomu aadama moom lu tax suñu borom bind ko lu tax mu tàggatal ko doomu aadama yàlla da ko fonk ba bindalu ko kenn wala lenn lu dul jëmmam ji borom bi tabaraka wa taala moo tax doomu aadama bi nga xam ne gëm na boromam te nam ko war a gëmee di ko jaamu nam ko war a jaamoo kooku mooy jaam bi gën a foor ci borom bi tabaaraka wa taala lenn lu yem ak moom fa yàlla amut kooku moo jaral borom bi tabaaraka wa taala bakkanam boo ko fàttee mu far asamaan ak suuf ngir jëmu jooju kooku kon mbokk yi foor na doomu aadama looloo tax sunu boroom moom bind ko ngir moom képp moo tax doomu aadama lépp lu muy jaamu wala ku muy jaamu lu dul borom bi tabaaraka wa taala fayul naar ba xoromam xam maanaam réere na boppam réere na xiimaam réere na darajaam ndax yàlla dafa jël lépp teg doomu aadama ci kaw moom yàlla képp moo féete kaw doomu aadama kon su doomu aadama wàccee nag bay jaamu ay xërëm wala di jaamu alal bu boobaa doomu aadama réere na boppam sunu borom dañoo bind ngir ñu jaamu ko di toroxlu ci moom di ko ñaan ngir nu defar suuf si yewenal ko ngir ñu rafetal jëme ci mbindeefam yi yërëm ñi nga xam ne dañoo way dañoo néew doole waaye ngir lépp lu dul yàlla yàlla gënal ñu ko su julli jotee su wootee ca jàkka ja lépp lu dul wuyu ab wooteem wuyu ab wooteem gënal ñu ko su waxtu koor jotee lu mu tàng-tàng ak lu mu metti metti lu dul jëfe ndigalam koor jëfe ndigalam loolu gënal ñu ko su wootee xaj ca ñu lu dul jëfe loolu jëfe ndigal loolu gënal ñu ko su demee ca marché ba jaay ak jënd ñu mën a wor mën a def ay pexe ci ay balance lu ñu mën a may ca alal jëfe ndigali borom bi tabaaraka wa taala matal ko gënal ñu ko hakaza fopp fooy taxaw rek sa bor sa bakkan woole ci lii wala addina woole ci lii wala seytaane woole ci lii nga gënal la sa borom tabaaraka wa taala woo ca leneen la loolu mooy ak mat loolu mooy def jaam nit ki mu doon dëgg dëgg jaamu yàlla borom bi tabaaraka wa taala mi wax ci ab xadiisul qudsi yu ne yéen sama jaam yi maa ngi leen di xamal ne binduma leen ngir wettiliku leen wettilikuloo leen binduma leen ngir sama mbooloo dafa néew ngir ma baril ci yéen sama mbooloo binduma leen ngir na dama am lu nga bëgg ngeen jàppale ma ci dimbale ma ci binduma leen ngir ñoddil sama bopp njariñ wala jañal sama bopp lor dama leen a bind ngir ngeen jaamu ma jaamu yàlla ko yàgg ngir ngeen may tudd waxtu wu yàgg di ma sàbbaal suba ak ngoon kon jaamu yàlla moo tax boroom bi tabaaraka wa bind doomu aadama doomu aadama lépp lu dul yàlla yàlla da ko bind ngir moom tàggatal ko ko kon saa yu wàccee ak ndam di jaamu dul borom bi tabaaraka wa taala na boromam moo tax ñi nga xam ne duñu ay jullit gëmuñu suñu borom. xamuñu teraanga jooju borom bi tabaraka wa taala dafa leen ndax borom bi tabaraka wa taala bi mu wax wala xad karram na bani aadama la wax doomu aadama la teral waaye ñi nga xamante ne bi ci doomu aadama nag ñoo nangu teraanga loolu ñooy ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñoo ko gëm kon nga xam ne ñoom nanguñu teraanga jooju ji jaamu keneen wala leneen lul borom bi dañoo wàcce seen daraja ba yemu ak waahima bal ma sax ñu leen gën in hum illa kal an'am bal hum adall sunu boroom def ko muy mbindeef moo xam ne si ak góorgóorloom ak ci farloom mën na yéeg di yéeg ba kawee malaaka yi féete ñépp kaw dara ji waaye ci ak sàgganam ci ak réeram mën nay wàcc di wàcc ba gën a suufe ci li yàlla bind inna alladina amanu wa amilu salihat ulaika hum xayru lbariya inna alladina kafaru min ahli alkitab walmushrikina fi naari jahannam ulaika hum charru lbariya kon nit dëgg doomu aadama dëgg di nga xam ne moo tax borom bi tabaaraka wa taala digal doom malaaka mu sujjóot ci moom moo def moom la def muy xalifaam ci kaw suuf muy ab julit kon ku dul ab julit ma des na koo jàppe sax mu du nit doomu aat maanaam bahime la bahime la ndax dafa wàcc bor darajaam ba fa ko yàlla la taxoon yàlla bind ko moom mu wàcc ko wala sax bahime moo ko gën ndax baahir moom la tax borom bi tabaaraka wa taala bind leen ña koy def waaye moom nag li tax borom bi tabaaraka wa taala bind ko moom def ko mooy doomu aadama yi nga xam ne gëmul yàlla kon nit dëgg mooy ki nga xam ne xam na yàlla dëgg te di ko jaamu jéem a taxew ay xaqam di ko jaamu ci kaw suufam si di ko yërëmal mbindeefam yi di leen jàppale kemtulaay kàttanam di ko jàllaleel di leen ji di ko jubbantil doomu aadama yi ba ñu xam ko jaamu ko ndax ñépp mën a am ak taxe ëllëg looloo tax lislaam ñëw ñooñu la lislaam di yar ñooñu ñooy ñi nga xam ne jullit boobu mooy bi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon defar ngir mu koo xam ne dafay jariñ boppam jariñ aw xeetam waaye tamit jariñ euh, famille bi mu doomu aadama kon bu defarut wàcc dara darajaam du jariñ boppam du mën a jariñ aw xeetam du mën a jariñ ab femeem waaye tamit bu ëllëgee dafay bokk ci ñi nga xam ne matum sawara lañu lépp lu baaxul am na ab sën buñ koy sànni lépp lu baaxul am na ab sën buñ koy sànni sën bi nga xam ne mooy sënub yàlla nga xam ne bépp doomu aadama boo xam ne la taxoon mu bind la ca mooy xam ko ca jaamu ko matale woo ko sënam mooy sawara mooy sawaru jahannam wal iyaadu billah yàlla yàlla def kon ñu xam dëgg-dëgg li tax borom mi tabaraka wa taala binduñu ca mu kàttanal ñu ba ñu mën koo taxawee ni mu waree yàlla yàlla def ñu ay jaam yu mu xirtal ci ñu jaamu ko ca mu nangu leen seenu jaamu ca xaroo leen aljanna wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin